kaas ñaxtu. Mm-hmm. xeex sax pour peine de mort. Macky Sall xam na ne que journée boobu démb waa démb c'était un dimanche. Macky sax xam na ne que ak àddina bi que. sës nañu ñu ñu acceptel ñu ko parce que tamit quand même li ñuy def métti na lool euh, donc ñu ngi mastawu famille kooku noonu di wu lu bëri bëri képp ki nga xamante ne daal ñàkk nga sa doom bu jigéen ci anam bu la neexulee wala ci beneen anam ñu ngi leen di mm-hmm. mastawu alors donc xam naa pas sax di nga ñëwaat ci actualité plus euh, le cas sera avancé plus ñu am luñ ci leer parce que le constat est que rey nañ jigéen mm-hmm. lan moo nekk euh, li nga xamante ni la partie cachée de l'iceberg dinañ ci ñëwaat ak yéen incha allah matoon na annoncé matoon na ñax artu mattoon na bàyyi euh, xel ak yéen nit ñi ñu ji ci bàyyi xel alors ci noonu la ñuy descendi ba tey rek ci euh, rubrique musicale mhm. voilà Asma kon ma doon wax rek nekk Aminata Fall mu nekkoon jigéen boo xam te ne exactement son bee ngi nii Aminata Fall moo woy kang foor <laughs> soxna bi ñu lay fàttali bi de bokk na ci gën a xam ci moom. waaw kantoore beeg. Aminata Fall. xam nga si mag ñi njëkk ñi dañoo dañoo dañoo nekk ay ndaanaan. Mhm. dañuy seen day am parole yoo xamante ni si day yeete day jàngale te teewul day ànd ak musique nga mu mën a neex nga mën koo fecc mhm. ànd te am loo ci surtout surtout cela surtout cela lu tax laajuma paasan ndax euh, paasan war na koo xam bu baax a baax ñu yëngal bopp et puis <laughs> jamonoom la euh, non mën naa ne sa du jamono parce que paasan jeune la ba tey waaye xam na ci moom lu bëri bëri ndax euh, culture musicale paasan def ce xam lu bëri bëri donc pas. ba pare paasal watu ba def ñaari tere yi. waaw paasal il est très <laughs> élégant ce matin. macha allah dellu watu assez souvent parce que c'est très charmant. Eh, ma def ko waru Yacine. waaw. Ah. Euh, <laughs> defe naa kilifa bi def ko ta robe est jolie. Vous <laughs> et les autres jours. <laughs> et les autres jours ah. <laughs> en tout cas Aminata Fall comme ni nga ko waxee rek moom mu nekk chanteuse bi nga xamante ne elle est la plus jazzy la plus bluesy de l'histoire de la musique sénégalaise tey jazz ci moom la daal di sokkeekoo ci mhm. jigéenu Sénégal moom nag euh, mu nekkoon jaaykatu gerte fële ca euh, buntu lycée Faidherbe bu Saint-Louis. Mhm. nekkoon nag euh, mu jàkkaarloo benn cinéma cinéma boobu muy faral di ci gis ay affiche ak di dégg ay son woo Aretha Franklin di ci déglu ay ki nga xam xamante ne moo di Louis Armstrong ay Tony Rossi ñoo ñëpp muy dégg hmm. seeni baat mu bokk ci li ko inspiré moom it mu ñëw am une voix rocailleuse et très envoûtante ci la daal di commencé rek li nga xamante ne loolu mooy euh, musique ba ñu ko doon woowee Nathalie Jackson bu Sénégal moom nag ah, Aminata Sarr bu mag hmm. donc ñu dem ba dippeek ko exactement ñu dem ba dippeeku ko ci femme sénégalaise moom nag euh, mi ngi intégré euh, club de jazz bu Sénégal euh, le Star Jazz de Saint-Louis en 1958 Aminata Fall mi ngi attiré attention mi ngi attiré attention suñu président Léopold Sédar Senghor ba mu invité ko woon ci li nga xamante ne moom mooy premier festival mondial des arts nègres en 1966 donc euh, nekk na benn jigéen boo xamante ne bu jàmbaare. bu mhm. nekk première ci wàllum jazz bu amoon une voix boo xamante ne boo ko dégloo rek da lay da ngay taxawaat dégluwaat ko moo tax Senghor daf ko ne euh, voilà une femme qui a une voix en or euh, qui qui dans n'importe quel pays avancé du monde aurait aurait fait une carrière internationale et incroyable donc loolu la ko Senghor wax te muy dëgg Sénégal des fois du ñu xam lu ñu am. Mhm. mais am na ñu jigéen yoo xamante ne euh, bu doon ci beneen dëkk ñu màggal leen donc Aminata Fall ci loolu la daal di bokk. te moom daf may xaw jox eeru ki nga xamante ne mooy Myriam Makeba. waaw moom mooy suñu Myriam Makeba day wax. dëgg yàlla mhm. macha allah mi noonu. <laughs> Euh, ñu jàll tamit ci Kiné Lam Kiné Lam nekk première jigéen bi njëkk battre record vente cassette mhm. ci domaine donc moom Kiné Lam macha allah première tamit ci yëpp moo tax tey ma daal leen andi kenn ku ci nekk nit ñi nawloo nañ leen sopp nañ leen ci seen liggéey tey ñu nekk ci ay jàmbaar jiitu ci tamit. teg ci Mam Bamba. Mam Bamba Kiné Lam Mam Bamba <laughs> mi ngi noonu moom nag Kiné Lam premier album am nekk Dogo mu jaay ci à peu lu toll ci cent mille exemplaires. Kinderlam nekk une diva au vrai sens du terme. Mhm. en forme ci lépp euh, fond weeg forme bi yëpp. dañ mhm. koy woowee la diva ndax moom it nekk na macha allah koo xamante ne li mu def mës naa neex Sénégal mës naa neex jigéenu Sénégal euh, ci wëyam yi yedd na ci andi na ci loo xamante ne soppi na dundum nit donc moom ne laam nag mi ngi commencé carrière am à l'âge de 14 ans. Euh, mi ngi intégré mhm. mi ngi intégré en 1978 li nga xamante ne moom mooy cercle jigéenu Sorano yi moom Kiné Lam donc euh, mu formé groupe am en 1989 ànd ci nag at ay musiciens yu exceptionnels ku ci mel ni Cheikh Tidiane Tall eh, Edou Dieng Thio Mbaye di di batteur ci ki nga xamante ne moom mooy euh, Omar en ce moment ci Youssou Ndour Dial Mbaye ki nga xamante ne moom mooy Abi fay mës naa bokk ci moom te staff bii mu àndaloon nag daf ko jàppale jàppale boo xamante ne ci la kinelaam daal di tàkk rek ba tey macha allah di ñu bégal ci ay son moom. macha allah. Abi Abi Faye aywaay eh yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, euh, album le retour. le retour ak kinelaam. yàlla na yàlla fay abi album boobu lañ defee woon après dañu la woot la kenn laam woote woon stade parce que maa ngi ko doon Moussa seetaan mu bokk na ci jigéen ñoo xam ne ñoo gën a ñoo njëkk see feesal stade damaa sopp nag xoolal li <laughs> yow kay moom kañ macha allah jigéen am nañ jigéen ñu jàmbaare nanaa rek jigéen ñu une première ci lu nekk ñu daal di desandi ba tey ah ci ñi nga xamante ne def nañ fi lu bëri mu di ñu jàll ci Yandé Codou Sène Yandé Codou Sène moom itamit nekkoon la grande de la région du Sine ci ci géwélu Léopold Sédar Senghor mm. moom tamit euh, Senghor daal di koy wóolu ba lépp lu mu am ci visite officielle rek daf koy daal di invité mu daal di ci ñëw moom nag euh, Yandé du Sène euh, nekk na en 2001 gaynde bëggul mbuum yàpp lay dunde gaynde gaynde bëggul mbuum yàpp lay dunde asmaan di yàpp soxna may ñu soxna soxna exécution reprend soxna lii dafay parti nga wax léegi répétel nga ne man ko faama wéy non non non noo ko wéy ci gàmm bi nga ne woon boobu jàll na tamit déedéet soxna damay bëgg nga may ma ko tuuti rek ci. anniversaire wu sa sa sa ki baax ci yow. may ko ko xaar ma ci rajo bi. xaar ma ci rajo bi rek. ali maa nga fa di ko toj maa ngi fay dem léegi bu noppee toj ko. kon jeex na. macha allah yaa ngi ko di seen